gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci sangu sangu yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di am mbégte nag bu rëy rëy euh, daje woon ak yéen fii ci kër gu mag gi pour waxtaane ak yéen rek euh, face to face bu rëy bi nga xamante ne nii moom lañu waroon a amal mu waroon a dox ci diggante rëg-rëg ak Sa Thiès euh, li fi xew nag mbokk yi doon loo xam ne lu doy waar la mais avant ñu xuus ci waxtaan wi rek Euh, dañuy bàyyi euh, le promoteur Makan Beng euh, bu Gaston Production mu expliqué ñu lan moo fi xew gannaaw bu ñu ko nuyoo ba pare Makan. asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Sénégal du nuyu ñëpp ñu ñu seetaan voilà ñu ngi woon fii ci numu mu tudd les Signares. te mu nekk ci Cambérène bi ñu leen di remercier au passage benn complexe la boo xamante ni bon am na piscine am na euh, restaurant lépp lu fi waaye bëgg def salle euh, pour même ay conférence ak affaire yooyu donc les signares ci Cambérène ils sont ouvertes euh, place bi gis ngeen nu mel rafet na yaatu na ñu leen di remercier bu baax a baax a baax donc di nuyu waa Gaston production yëpp di nuyu. ñëpp ñu ñuy seetaan waa Sen TV nga xam ne on est en direct di nuyu toute la presse en ligne bon jëloon nañu suñu matuwaay yëpp nag muy sécurité muy police CNG mi ngi fi euh, Thiam représenté leen ak commandant Thioune ah, ma nekk fi ak sama équipe Alioune Gueye mi ngi sama droite Abdoulahat euh, nekk sama gauche euh, représentant te Sen TV muy sama xarit sama frère Ray nga xam ni mu ngi accompagner ci lu bari temps yëpp ñu ngi gis seen émission bi dellu si waat na. Mhm. gis nañ liggéey bu rafet bi ngeen ciy def. làmb ji nag rëg-rëg saa Thiès xalaatoon naa ni dinañ def suñu face to face mais yàlla dogalu ko. bon ñu ciy euh, masawu ñi ko doon xaar parce que àddina ñu ngi ko doon xaar mais daa mel ni. combat bi jar na man euh, xëy na tuuti laa ciy jëlee positif kii rek négativement rek mais mën naa ko jëlee tamit tuuti positivement daanaka rafetul gaa parce que ay sottante gàllaaj moo fi amoon euh, ñu naroon fee combat bi naroon commencé tey mais nee naa leen du tey le cinq la dañoo jaawale bësi yi euh, yeggaguñ ci daanaka presque léegi ñu yegg dimanche donc huit jours la dimanche prochain la xam naa ni ki tarde combat bi di nga tardé loo xamante ni yéenewuma kenn tardé ko daal maanaam ndax la 5 moom ñëw na ba pare. Euh, le le le 5 ñëw na muy euh, vraiment combat boo xam ne combat bu mag la parce que waxuma Sénégal mais àddina mu ngi koy xaar. diaspora tey nag dama amoon yaakaar ne moo nekkoon seen dernière face su face mais li fi xew mbokk yi. Euh, dafa doon loo xam ne bokkul aussi ci li nga xamante ne nii dafay jëmale làmb kanam parce que rëg-rëg moo njëkk dugg si toog ànd ak ay mbokkam yeneen mbër yëpp aussi ñëwoon nañu toog g nga xam ne seen représentant dinañ ko jox kàddu gi léegi muy monsieur Thiam moom aussi mu ngi fii le commandant Thioune mu ngi fii sécurité bi ñëpp ñu ngi fi woon presque booy xool ñu ngi fi woon depuis 19 heures mais bi Sa Thiès dugg see rek lañu gis ñaari camp yi sànninte ay saafara sànninte xeer ba ñun sax sunu benn micro yàq nañ ko ci bi nga xam ne Morphose moo ko yoroon dañu ko jël sànni ko ci suuf sécurité bi aussi vraiment mujj gi mënatul maîtriser li nga xamante ne nii moo fi xewoon parce que li fi xewoon euh, ñaaw na trop ci wàllu image mu doon nag loo xam ne vraiment lu doy waar la lu ñaaw la ci li nga xamante ne nii mooy wàllu làmb parce que làmb tey fi mu toll nga xam ne dañu wax ne làmb secteur la boo xam ne léegi secteur de développement la mu doon suñu culture doon suñu cosaan vraiment lamb ji nekkoon ci ay jafe-jafe mais ak le promoteur Gaston Mbengue ànd ci ak doomam ñu commencé di andiwaat ay affiches yu important di ñu wanaat lamb yi direct nga xam ne combat yi ñu génn yëpp yéen a ko doon am sur la chaîne TV muy chaîne leader ngeen di ko am direct lamb ji di commencé jëlaat place am tey ñu ñëw ci dernière face to face vraiment gis fi loo xamante ne nii euh, dañ koy ñaawlu li tax ñu koy ñaawlu nag ñaari jeune lutteur ñaari étoile ñaari xale yoo xamante ne nii ay xale lañ yoo xam ne làmb daf leen yaakaar làmb aussi am ci ñoom yaakaar ku ci nekk yaa ngi def carrière boo xam ne booy xool euh, mu ngi yaa ngi bëgg ci yàgg ci làmb parce que ku ci nekk am nga 16 combats kon tey nga xam ne àdduna Sénégal diaspora bi un peu partout dans le monde ñu ngi leen doon xaar amoon nañ yaakaar ne bu ñu ñëwee daañu toog waxtaan saafonte waxante loo xamante ne ni le jour ji bu ñu ci àggee ñu bëre ko ci jàmm que le meilleur lii nag rafetul ci làmb rafetul aussi ci structure bu mel nii euh, Gaston Production nga xam ne vraiment ñoom it depuis 1992 ñu ngi ci làmb am ci expérience bu nekk donc lii ñu ngi koy ñaawlu bu baax léegi makan avant may ñëw ci yow dama mëggoot ñëw ci le représentant du CNG monsieur Thiam Thiam tey li fi xew mu ngi xew devant toi ñu bëggoon a xam d'abord euh, ban jàngat nga ci def ak CNG ban dogal la ci mën jël jërëjëf Ray ñu ngi leen di nuyu ñu ngi nuyu assistance bi ñu fi teew ñëpp di nuyu promoteur bi Makan di ko massawu parce que nag aussi effectivement dispositif yu waroon lépp def nañ ko parce que sécurité bi teel nañu ñëw ñun biñ jógee stade biñ jógee arène nationale rek dañu daal di agsi ñëw vraiment lépp yaakaar nañ ne dina tegu ci yoon parce que vraiment décor bi campé woon nañ ko lépp organisation bi dara lépp teg woon na ci yoon mais comme niñ ko waxee rek Euh, il faut que mbër yi xam ne que ne lii du taaral làmb euh, rafetul jekkul euh, parce que nag aussi bu ñuy jógee di wax na sponsor yi ñëw na sponsor yi ñëw kon jàpp nañ ne làmb ji lu koy taaral ak lu koy defar rek la ñu war a def te ñoom ñoo ci war a jiitu bo comme ni ko promoteur bi waxee nag xam effectivement làmb ji xaj na moo toll noonu jaay na boppam tu vu mais image ci boppam rek comme ni ngeen ko waxee ne ñëpp a ko doon xaar euh, parce que lu officiel la moo tax ñun ñu CNG yebal yebal ñu fi ñu ñu teew si fii euh, donc dañoo xalaatoon ne dinañ ko def ci defin bu am bu mucc ayib euh, vraiment ñu jaay combat bi ndax tey jii moo doon le le dernier tournant Euh, donc jàppoon nañu ne daal lépp dina rafet mais malheureusement toujours comme ni ñu koy wax rek euh, accompagnant mbër yi toujours ñoom ñooy indi problème yi ndax boo xoolee li xew euh, te ñun ay ndaw lañu donc danañu def li ci war ci liggéey bi ndax ñu rendre compte fidèlement à travers un rapport boo xamante ne bii li ci xew lépp danañ ko def. danañ ko ci def bu boobaa nag après CNG dina xam ne moom. dina est-ce que est que est-ce que euh, lii mën nañu ci xaar ay sanctions pour ñaari mbër yi. waaw xam naa nag euh, loolu c'est peut-être à un autre niveau mais li wér te mooy euh, un rapport détaillé sera déposé loolu moom c'est à coup parce que face to face bu am dañuy def rapport de yóbbu ko au niveau du bureau eh, gis nañ fii toujours mu am face to face yoo xamante ne bi après dina am ay dina am lu ci topp ah dina am lu ci topp donc euh, lu mel ni aussi bu amee ñun duñu neen def lu dul rendre compte fidèlement à travers un rapport un rapport bien détaillé bu boobaa nag maintenant euh, au bureau de de de de faire ce qu'il en est. Euh, merci monsieur Thiam Abdoulaye euh, yaa ngi euh, depuis. des années ci Gaston Production nga yàgg organiser événement euh, situation bu mel nii est-ce que mas ngeen ko dund euh, ci làmb waaw mag lay ziar di ziar àdduna monde entier di ziar sénégalais yëpp di wax ni Gaston Production def na li mu def ku ñëw fii xool sécurité bi d'abord bañ nañ ko ba ñaari mbëri kenn bokk ak sa moroom porte bi nga jaar bu doon rëg-rëg wala Sa Thiès kenn ci ñoom moo jóg dal ci kaw moroom ji à la mais euh, ñun waa làmb il faut ñu jëlaat mesure xam nga temps yee CNG jël na benn mesure ñu bëri di ci kaas. Mhm. mooy ci côté accompagnant bëri ba ci gàllaaj yi ñi koy sotti yooyu. il faut ñu réfléchir xalaat ni lu mel nii mooy andi des fois règlement génn mu metti mais day fekk loo xam ne luy defar la. Mhm. tey bu fi police nekkul woon mënoon na andi leneen. malgré du xeex du dara xëppante ay saafara xorom. ngeen comprendre ni combat bi moo toll. non aussi sànnante xeer. waaw non non non attends xam nga sànnante xeer. wax dëgg yàlla bu ameet xanaa après la mais bu sànnante xeer amoon kenn du leen atte ñun ñëpp dañu daw génn donc liñ fi gis man li ma gis ma fekke ko mooy xorom ak xawma saafara bi ñuy wax sax yaa ngi dégg may attu eh déet waaye ay xorom jaru ko donc ñaari mbër yi kenn mënul may sa morom dara et puis combat bi moo fa toll du booba tension buy gaañante wala tojante ñii bu ñu départoon pour xeex ñun ñuy ñëpp kenn du ko fekke dañuy gaañu fii mais police bi def na liggéeyam di féliciter aussi benn camp mbërëm mi kenn ki jël na mbërëm ménager bi jël ko yóbbu ki ci des aussi génn na mbërëm parce que bu doon ñoom ñaar dañu xeex mu deme noonu mais pour wane ni xëccoo la. Mhm. làmb ji mbër yi dañu ci xëccoo combat bi kenn mayul sa morom dara. sa morom bañ donc xëppante saafara la donc il faut ñu xam ne ñaari mbër yi jërul sax laaj arbitre sifflé dañuy mbëkkante parce que kenn mënul may sa morom dara ñuy jéggluwaat rek di wax ne tension ba la mais nag ñoom it ñu xaat xalaat nii réglement am na te am na lu yoon joxe ñi ngi jéggul sunu sponsor yi nga xam ne ñu nga fi gis ñu ñu brandi gi bis bi defar ko am na ci sponsor boo xam ne jëndoon na bii yu bari ay millions pour ñaari mbër yi dèjà yóbbaale ko gërëm jërëjëf bala ñuy sori daal mooy uh-huh. di encouragé waat yëpp di encouragé encore sunu frère Makan di ñaanal sunu baay bi aussi Gaston mm-hmm. yàlla gën a fëgg boppam di wax ne daal li ñuy wax mooy raay mm-hmm. gis nañ fi lu gën a yéeme ci làmb mm-hmm. mais xëppante saafara ak yooyu mais sant yàlla bi ñu leen génnee ñu dem ñibbi <laughs> bu doon dañu koronte fii di dóorante wala ay mbër di xeex image yaa ngi fi dañ koy gis mais yàlla def na laalante wuñu yow ñu ngi lay féliciter Sen TV di yégalu UTV di gërëm waa Sénégal di leen wax ni xëccoo làmb la tension baa fa toll combat bii Sénégal yëpp nangu nañu c'est le meilleur combat de l'année mm-hmm. mënul yomb ci benn côté jërëjëf merci euh, jërëjëf Abdoulaat Makan euh, gis nga tey situation bi ni mu demee yaakaar naa ne aussi tey mooy euh, seen face to face bu mujj léegi lan ngay wax sponsor yi rek pour ñu mën a tëjee waxtaan wi foofu. bon euh, xanaa di leen remercier parce que vraiment euh, ku ci mel ni 1xBet nga xam ni que moom euh, mm-hmm. mooy mooy maye làmb ji le jour ji mm-hmm. ñu ko ci sant bu baax di ko ci këram parce que vraiment lépp lu mu waroon def def na ko KPay aussi moom tam ñëw comme sponsor di accompagner Gaston Production euh, Sénico Alib ak euh, Telia ñoom tamit euh, ñu ngi accompagner Gaston Production CGIS ak CDC ñoom tamit ñu ngi accompagner Gaston Production vraiment dañ bëggoon def benn fête mhm. parce que même drapeau bi ñu ngi ko tuddee Yankoba Diattara ministre des sports. ministre des sports. ñu jël combat bi gën a mag. soo xoolee. muy àddina di xaar muy rëg-rëg Sa Thiès combat de l'année combat boo xamante ni vraiment dafa mel ni ñu ko doon xëccoo sax avant ñuy yegg si bëri woon na lool mi ngi mel ni Modou Lo. Boy Niang bi mais dañuy sant yàlla ci côté boobu ndax euh, Gaston production yàlla dafay jël combat yu neex di ko jaarle foofu dañ ko ci sant di ko ci gërëm. Euh, di wax daal rendez-vous bi dimanche cinq la. yàggul dama bëgg tuuti rek. comme dañu déplacé woon euh, ministère des sports. Mhm. Euh, ñu leen di remercier au passage je sais que ils ont un message à passer parce que damay ragal jour J bi waa Thiès fees ci làmb ji damay ragal waa caaro yi ak Géejuwaay suñu yéexee tuuti waa Thiès di leen feesal stade bi. donc ñu bàyyi sama xarit le représentant du ministre. mu sànni ci mu ci ñaari kàddu euh, ñu ñu joxaale ko drapeau bi lancé waale drapeau bi euh, représentant ministre des sports monsieur Yankhoba jatara mën nga mën nga sànni ñaari kàddu ci euh, sa teewaay tey ak ni ngeen di waajale bés bi le 5 incha allahu rabbi. ana may leen ko may leen ko may leen ko tuuti ba mu sànni ci ñaari kàddu ba pare xaadim euh, sàmb euh, sunu papa xaadim sàmb moom it euh, teew na ci bés bi ñu ñu avancé tuuti nii ci kanam ma fari ma fari le représentant du ministre des sports monsieur Yankhoba Diattara nga sànni ci ñaari kàddu rek saala bi sunu xarit ñu ngi koy nuyu xadim sàmb aussi le grand communicateur moom it ñëw na ci bés bi mu doonoon vraiment bés boo xam ne bés bu màgg la gaa ñi lii nag lu yàgg lu yàgg ci làmb la parce que li tax li yàgg ci làmb euh, booy boole da ngay boole ñaar ñoo xamante ne ni dañu am gannaaw mais ñaar ñu am gannaaw mais également ñaar ñoo xam ne dañu tolloo gannaaw parce que diggante Reug Reug ak Sa Thiès observateur yëpp nekk ci biir réew mi ak làmbulog yi ñëpp ñu ngi fi mais kenn sañu ci wax kenn sañu ci wax c'est pas parce que euh, dañu mënul wax mais dañu xamul lan la ñu war a wax ci combat bi booy boole nag dangay boole ñaar ñoo xam ne dañoo tolloo doole booy boole da ngay boole ñaar ñoo xam ne dañoo tolloo relange booy boole da ngay boole ñaar ñoo xamante ne ni également ay bërekat lañu. rëg-rëg yaa cinq ci gannaaw bu daanoo ci lutte sans frappe bi dañuy wax ne rëg-rëg daanu na dafay nekk événement ci biir réew mi sur trois cent combats rëg-rëg booy xool ci dix fois la ci daanu muy un lutteur boo xamante ne nii c'est un jeune lutteur confirmé nekk étoile montante nekk koo xamante ne nii xale la mais également yaakaaru làmb la mu ñëw ci arène bi nag depuis 2012 ci la lukkeeku def 16 combats am ci 14 victoires mais mu am ci 200 verdicts kon gannaawam laalagul suuf mais mbokk yi kan mooy Reug Reug góor gi Modou kan moo jur Papa Kane bugguma kan a jur Papa Kane Papa Kane a daje woon ak Double Less Double Less mi nga xamante ne nii moo daje woon ak Papa Kane moo jur Sa Sa Thiès aussi nekk xale boo xamante ne nii mbokk yi bi mu ñëwee ak léegi def na lu ne ci làmb muy combat boo xam ne yu mel nii nañu ko ci séentu mais le jour ji yàggul incha allah ci kàttandu yàlla le 5 mars ñu daje ci arène nationale bu ko defee daañu xam fan la dëgg gi féete le représentant du ministre avant may jox saale bi kàddu gi ak suma papa Xaadim Samb nga sànni ci ñaari kàddu jërëjëf Euh, xam naa di am mbégte ci jataay bi vraiment di féliciter Gaston Production di ko jaarale ci suñu frère euh, Makan comme ni ko ñëpp waxee di ñaanal suñu papa aussi Gaston mbéng yàlla fëgg boppam yëkkati ko ba mu dellu siwaat ci làmb ji nga xamante ni ñëpp xam nañ ne lu mu bëgg la te def na ci lu nekk ndax euh, ku tudd làmb fii ci Sénégal di nga tudd Gaston Mbengue kon nag vraiment euh, Makan ñu ngi lay félicité di la encourager di la wax ne la jàppal bu baax a baax dina metti dina yàgg ndax sa papa euh, gis na lu nekk daj na lu nekk mais musta yuqat musta décourage loolu ñëpp xam nañ ko euh, le ministre moo bëggoon ñëwal boppam mais ak contrainte yi moo tax mu yabaloon délégation bu mag Euh, vraiment jut ñenn ñu jutuñu agsi ndax euh, ci yoon bi lañ ñu wax euh, xew-xew bi fi am mu nekk loo xamante ni aussi vraiment ñu ngi koy déplorer ndax lu mel nii warul am ndax bu ñu waxee sport luy boole ay nit la rawatina làmb làmb moom ñun ñoo ko moom suñu yëf la mm-hmm. jéggaani ko nit nag du sabooti li mu moom du ma wax yàq parce que làmb ji kenn mënu ko yàq làmb ji buñ geesoo yam ci ñoom saala biige yam ci suñu tonton xaadim sàmb di xalaat ku mel man El mbay ku taxaw ne làmb ji mën nga ko yàq da ngay nax sa bopp làmb ji kenn mënu koo yàq mais bu ñu ko sabooti parce que ñoo ko moom suñu sport la suñu sport national la nañ ko jéem a valoriser ay jeunes ñoo ci nekk xëy na ndaw ak deretam day xaw a tàng mm-hmm. Euh, làmb aussi dafa laaj animation xëy na lool la mais daal li ñuy ñaan. Hmm. mooy ñëpp dellu dellu siwaat au calme xam ne ñaari mbër yi ñoo bokk ndey ak baay. yéen a ngi waaj. waaw loolu moom. Euh, ni ko Makaan waxee euh, Makaan li mu wax léegi drapeau Yankhoba Diattara ñëpp xam nañ ne du yomb. <laughs> ndax drapeau Yankhoba Diattara mooy drapeau Thiès. mooy drapeau Thiès waay mooy drapeau waa Kajoor. kon la cinq bi ñëpp xam nañ ne du yomb te bu ñu ci àggee dinañ xam ne Yankhoba Diattara mérite nañu tudde ñu tudde ko drapeau aussi ñuy xaar làmb ju neex nag ndax vraiment ñaari mbër yi ñu boole jërëjëf ñoom ñaari ñëpp ay doomu làmb lañ kon jàpp nañ ne lamb bu neex dina am jërëjëf ñu jox euh, ñu jox kàddu gi rek sama papa Khadim Samb xam naa ne euh, moom it euh, tardé na li fi jote xew mais papa ci gàttal rek nga wax ñu ci combat bi tuuti ak xew-xew yi nga xamante ne ni euh, moo fi moo moo fi jot a xew. waaw jërëjëf xanaa rek euh, def naa fukki at ak juróom ñëw ma signature contrat mais ñaari yëf a tax tey ma ñëw ci signature bi mooy fii maa leen ko jox fii maa leen ko jox ndax dañu tudde suma doom suma jarbaat suma produit man ak Idriss Seck ba Diattara muy xale bu baax di xale bu ñu am yaakaar di xale boo xam ni bii ñu ngi ñaan yàlla suñu boroom sportu Sénégal liñ ci yaakaar yàlla na ko yàlla may kattan ba mu yóbbu ko fu ko raw li président Macky sàll gis ci moom muy xale teel a ami responsabilité teel a ànd ak ay kilifa di homme d'état am yar am sutura am teggin ku toll ni suma mag suma xarit Gaston Mbengue euh, jël bés bu toll nii tuddee ko Yankhoba ba duma mën a def lu dul bi ñu bëggee fu ñu defee signature ma jox leen fii fii maa leen ko jox ñaari yoon la fi signature musa am ci àddina parce que musuñu nungu mbar dugg fii. no noo noo gisee combat bi. waaw maa ngi ñëw ci combat bi di gërëm rek suma mag le président Ibrahima Khalil Fall bii meeru Kër Samba Kane te yàlla dogal mu liggéey liggéey bu réy bi mu liggéey ngir askan wi liggéey ko ngir Sénégal mm-hmm. daal lañ fi def signature contrat Mor Ngom fii lañ ko defee maam Góor Diouf ak Balla Gaye numéro 2 booba ñu bari xamaguñu Balla fii lañ ko defee woon mu nekk làmb ju réy mm-hmm. fii mbër mu fi mës a jaar dégg nga daal di doon ko roi des arènes kon ñoo ngi ñaan ba Diattara mi moom bis bi yàlla na doon roi de arènes ci ministre sport di ñaanal Gaston yàlla sunu borom fëgg boppam mu wér ci barke yonent bi di ñaaral suma doom bii di makkan fi bàyyam yóbbu làmb yàlla ko yóbbu fu ko raw parce que bi ñuy créé gasto production 92 makkan day raam mhm. kon ñun li ñu créé sos ko nii luñu ndax am nañ tey ku ñu remplacé di wax ni bés du rëy boroom lay nuru yankoo baa toll noonu ci fit ci njàmbaar ci yar kon buñ jëlee combat bu toll nii rëg-rëg ak Sa Thiès nga xam ni papa kan caaro yi bi mu dóoree gars yi yëpp ñu daanu dafa dóor booy bàmbara mbay géey la tigre de Fass Robert booy romark baara njaay ñu jox ko duubal l'espace Balla gay moo ko jàpp tàkkusaani stade Demba Diop kon buñ demee ba yàlla dogal papa caaro yi rakkam bu mu bokkal ndeeg bàyyi jur doom muy rëg-rëg gemboo fa nga xam ni fala seeni mbay njaay dëkk Modou Kan Caaro yi maamam gouverneur bi muy dajeeg Abdourahmane Ndiaye Falang foofu la gemboo mhm. muy dajeeg doomi tuubal lees mu war a gemboo fooñi ak guddoom ak adiyaan wàcc si jaar géejawaay ñëw Pikine ñëw fii ci Hann Marinage ñu war a daje arène nationale muy bésu Yankhoba Diattara la cinq bés bu rëy lay doon mhm. mooy làmb ji dàq ci deux mille vingt trois ak deux mille deux mille deux deux mille deux mille vingt trois mille vingt quatre combat bii mooy ciy dàq jërëjëf di ñaan yàlla sunu boroom yàlla def mu àgg di wax nag ni euh, sama jarbaat wax na ko wax na dëgg biisu bu mel nii làmb biisu la du caaxaan ko xam organisation ni mu méttee def naa ko quarante ans xool barab bii ni ko ni ko ni ko makan décoré ay collaborateur am ba mu yëg si fii mbër yi waroon nañu respecter seen bopp respecter promoteur bi respecter sponsor yi ba bu ñu dikkee ñu ànd ak yar ànd ak teggi ndax bu ñu demee ba ma ñëw ma ñëw ma ñëw raay du yàkkamtiwuma quinze ans di ku ma signature contrat mhm. mais bés bi daf ma ñor mooy sama mag a ko moom sama doom woo ma ma jox leen fii ne leen defee leen ko fi ci ci suma ndigaluy doom Abdoulaye Abdoulaye Ndiaye dama bëgg ñu wax ak mbër yi dëgg mbër yi nañu delloo si seen xel ndax fii ay millions lañ fi def tey pour makan mën a def lu rafet nii lu taaroo nii kon mbëri bu ñu dikkee dañu war a am yar yéen communique yéen reporters yi ak journalistes yi da sponsor yi nañu ñëw sponsor yi ba ñu ñoo ñëw dañoo gisut lu ñu xam mhm. sponsor dem fu ñuy xeexe sponsor dem fu deret di tuuru yéen ñëpp bi may wut sponsor yéen a ngir am mhm. sponsor day dem fu civilisé parce que signature bi àddina bépp a ngi doon toog tey di ko xaar di ko seetaan di ko déglu ci ñaari télévision yi muy DTV ak i rajo kon rek li ñuy def mooy ñaan yàlla sunu borom yàlla yóbbu ñu ci bés bi bés bi làmbale joo xam ni du niil dina am bëre dina am xeex bu ko yàlla sunu borom dogalee yankoo ba ministre républicain waaye nag Thiès la dëkk cees képp danañu takku ànd ak moom bu ànd ak dogal yàlla waa Ndakaaru ak Pikine ak Géejawaay su ko yàlla sunu borom dogalee trois heures bu leen fekkut stade ba waa Thiès danañ ko fees ba ànd ak dogal yàlla incha allah. jërëjëf jërëjëf Papa Khadim jërëjëf Ibrahima Fall bi nga xam ni mooy suma mag moom fii. Mhm. di meeru kër Samba Kane di nit ku baax. di as gor di nit ku yàlla baaxal di wax nag ni ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi restaurant bi ngeen gis bu nekk ci bunt bi dend ak banque banque agricole agricole agricole bi mhm. mooy restaurant bi mujj ci Afrique di bi gëna a moderne nga xam ni sinwaa ak sàppane yi fi la ñuy ñëw mhm. lépp lu waay bëgg ci lekk nay dikk fii ci croisement Cambérène ci complexe bu am solo bi voilà jërëjëf Samb euh, jërëjëf euh, moom it ndeysaan euh, waaw. waaw KP. dafa am lu mu préparé loon mbër yi. ña kenn ku ci nekk yoroon na cinq cent tickets yu mu jënd. Mhm. may ci Reug Reug ak Sa Thiès. te loolu ay millions la parce que bii ci trois mille lay jar. donc nag lu mel bu amee dañ koy wax. ba nit ñi dégg ko one x bet dafa may sénégalais yi aussi làmb ci mhm. donc loolu lépp mu ñaaree sponsor yoo xam ne jar nañu jaajëfal KP nag alal réew doomi réew mee ko moom te yow mën nga cee ak wax nga cee wax waaw KP première station bi mu ubbi maa ko ba dernière station station bu ñuy ubbi su ma tukkee dem ba dafay wax nañ xaar ba xaadim ñëw ndax maay nekk modérateur ba bu ñu demee tey ba doomi Sénégal li nga xam ni soo yeewan tey jii dem ba caw mu ni ba ba looluy am fekkewu ma ko soo yeewoon Fodé mu ni ba looluy am fekkewu ma ko nga yee Abdourahmane Ndiaye Falang mu ni fekkewu ma ko bu ñu demee tey ba doomi Sénégal créé transfert xaalis bii nga xam ne mooy KP e. gën a gaaw gën a yomb gën a baax di jàppale lamb te Demba Ka lamb la mos a bëgg ndax sponsor ni Yékini ak Bombardier ni ak Tyson kon li may ñaan mooy kuy sénégalais te bëgg lamb wala ngay sportif del utiliser produit wu KP bu ànd ak dogal yàlla di félicité ba ci ndam li nga xam ne am na nañu ko tey ci 4-0 bi nga xam ni moom la suñu léegi jërëjëf Samb euh, Saala joxal Saala micro bi Saala Saala gannaaw bu ñu la nuyoo. jërëjëf Faye. Euh, nga sànni ci ay kàddu rek. Mm-hmm. Euh, parce que xam nga làmb ju toll nii. bu amee bés bu mag bu toll nii am yàlla dogal mu demee nii mu demee jaadu na tamit ku fi teew sànni ci ay kàddu. jërëjëf raay maa ngi lay nuyu bu baax di nuy assistance bi di nuyu sunu mag El Hadj mi Samb lii dafa gën rek. ndax dogal yàlla sunu borom bu amee rek nañ ko jàpp li dogalu sunu borom la. parce que xam naa ni ñaari mbër yi kenn amu ci intention yàq bis bi kenn amu ci woon ba ngay jógee ci kër kenn amu ci woon intention yàq signature bi mais le représentant de ministre wax na ko léegi signature face face moo yàq mais làmb ji yàquwul. Mm-hmm. il faut loolu ñu leeral ko téléspectateurs yi parce que ñaari télévision muy ITV ak Sen TV ñoo leen ko naroon a jox waaye nag borom bopp buy metti boo koy gunge bu dawul waroo daw. Mm-hmm. surtout yéen les supporters. il faut ngeen delloo si seen xel xam ne làmb sport la te sport booy dem dangay ngay yóbbu ñett victoire défaite match nul mhm. mais mënoo ni rek da nga bëgg yow toujours daan victoire ñun Sénégal nag dañu bëgg sport mais du ñu ay sportif parce que ñun victoire rek la ñu xam il faut ñu delloo si xel yi mbër yi ngeen di gunge mbër mi moo moom xaalis bi moo moom tàccu yi moo moom victoire bi moo moom ndam li xam nga yow lan nga ci am sa mbër daan félicitation kon nañu delloo si xel yi xam ne làmb sport la mag ñi dañ koo liggéey ba mu si fii kon donc warul yàqu te léegi Sénégal dafa mel ni léegi lépp dañ ko bëgg yàq nañu delloo si suñuy xel yéen suñuy doom il faut ngeen delloo si waat déglu yaru mën a respecté ndi euh, ndigalu kilifa yi kilifa yi tamit nañ jël responsabilité ñu yar suñuy doom parce que làmb bu yàqoo am na xale yoo xam ne tey jii tubaarkàlla ay R plus 4 lañ am ci làmb lañ ko amee am na ñoo xam ne tey ñi ngi faj ay buumi gàcce ci làmb lañ ko amee kon nag na nanu xam ni làmb facteur de développement la mhm. te tey dañu jëloo bis bi tuddee ko ministre de la république ministre des sports Yankhoba Diattara mu def in fort délégation yónnee son son son son son son son son son chef de cabinet mhm. ak délégation bi mu boole yëpp tey bis bi yàqu nii dañuy ñaan yàlla le 4 incha allahu rabbi kuy ñëw le cinq le 5 na nga fair play. Mhm. xam ni sport la mais sport bu ànd culture la. may ma sow may ma sow benn minute rek laay. mënu ma wax te wax ci Gaston su lay cargaan tabaski Fambooj mi ci dagg. dëgg la bilaay dëgg la kooku man ak moom suuf sax ndox maa ñu boole. bilaay dëgg la dëgg. may félicité Gaston baax Gaston production. di ko ñaanal yàlla yàlla sunu borom dali ko jàmm. Mhm. di félicité sama doom ji di makkan xale bu yaru. bilaay bilaay. boo ko xoolee ci kanamam sax am na lu ko naqari mais bugg ko sax fésal. parce que noonu la mel noonu la bindoo. mais nag il faut ñu xam ne Makan jeune la yéen bëri ay jeune ngeen yéen supporter ay jeune ngeen te xale mooy defar réewam. ndaw réew mooy defar réew. Makan encore une fois ñu lay féliciter di lay ñaanal le 5 yàlla ci àgg ak jàmm ñu bëree que le meilleur Sénégal jëm kanam. jërëjëf euh, jërëjëf Salé ah, Bigué ah baal ma de waa laa bokk na ma. Euh, kaa pay ma drapeau bi waaw. kaa pay ma drapeau euh, drapeau. Demba Ka sunu <laughs> xarit ak wan x bet. <laughs> non Saala kooku di ci ñëw le jour <laughs> ci ma ci ñëw le jour ci euh, euh, drapeau bi euh, drapeau bi remise drapeau mu ngi nii mbokk yi makan makan dañu bëgg nga sànni ci ñaari kàddu bu ko defee ñu mën tëj waxtaan wi di gërëm nag di ñaanal aussi sunu père Gaston Mbengue parce gannaaw yàlla bu lii lépp amee c'est grâce à moom ñu ñaanal ko yàlla fëgg boppam ba mu dellu ci waat ci ay activités parce que la lutte a besoin de lui mais yow fii nga teg sa tànk ñun sunu xel dal na yàlla bu yàlla tas sunu yaakaar parce que euh, dañu ne doomi mbër ak doomi ndaanaan bu ñu koy sukkal di ko raamal maxaama baay ba la waaye jom ja muy jiitee mbooloo moo koy sàkkul boppam Gaston nga mu jur rek ci làmb doy na ci biir réew mi doy na waaye ni nga taxawee ak fi nga teg sa tànk xelu sénégalais yëpp dal nañ ci yow yàlla bu yàlla tas yaakaar euh, lan ngay tàggatoo ci remise de drapeau bi. d'abord di remercier euh, suñu sambentons Ibrahima xalil Fall nga xam ni fii ñu nekk tey euh, bi ma jaaxle biñ ko woowee ma jaaxle ko ci sama tonton Xaadim Samb mm-hmm. dafa ne sa problème résolu kii nag sotti na. ndax mën nga ñëw ci restaurant bi ci place bi ci wetu piscine bi nga xool place fu la neex nga defee ko foofu. Mhm. donc vraiment dama koy remercier bu baax ba pare di ko ñaanal wér a gudd fan projet am yëpp yàlla jàppale ko ci ba lépp sotti ba lu mu bëgg yàlla ko ci am. amiin daal incha allah d' abord euh, ministre des sports Yankuba Diattara sama frère la avant tout euh, bësam la amul lu ma amul leneen lu ma ci wax. leen laa ci wax daal am na premier ndamam premier ndamam c'était mooy bu muy remporter coupe CHAN ak les euh, l'équipe du Sénégal donc euh, deuxième ndamam nag moo nar a nekk la cinq incha allah euh, à l'arène nationale dinañ ci yegg ak jàmm bu soobee yàlla gis ngeen li am tey kenn rafetlu ko ah mais yàlla baax na nii rek la mënoon demee sécurité bi su fi nekkul woon kon euh, vraiment daal merci la police ah police moom wax dëgg yàlla jërëjëf jërëjëf lii ma sol nag foog ma wax ci parce que euh, sama benn xarit bu baax ku ñuy wax Pintapeli émeraude mhm. boutique mhm. mi ngi nekk ci VDN bi mhm. CPI en face Majorelle numéro téléphone am 78 543 65 65 78 543 65 65 bi ma génnee sama kër ba léegi ñu ngi ma naan kat moo la ñawal kat moo la solal Binta Peli la donc ku dem VDN Emeraude Couture dana yu dàq yi sax ma nga fa donc. Euh, mais mais mais mais Makan jërëjëf mais li la arrivé moo ma arrivé boo xoolee tey ni ma ñëwee <laughs> et puis je viens de Mbour man Kajali Kajali Kajali Kajali balaa may joxe micro bi Kajali Dieye moo jaar fii marché euh. central bu Mbour. Euh, vraiment macha allah en tout cas mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax di wax ne. waaw dinañ ko ko jox après di wax ne face to bi tey xëj na yàqu na nii la ko yàlla bëggee. mais na ngeen xam ne làmb ji le cinq incha allah ci kàttanu yàlla ñaari mbër yi daañu daje parce que kenn mënul lekk avance te du pom combat bi nag lu mel ni bettuñu parce que mënu ci ñàkk parce que gaañi combat bi moo toll foofu damay lancer appel rek ci ñaari mbër yi Ibrahima Beuz Faye Beuz waaw dina ci ñëw damay lancer appel ci ñaari mbër yi mooy que nañu xam ne ñaari mbër yi fi mu toll nii depuis des mois bi seen combat taxawee ak léegi Sénégal yëpp ñu ngi ciy waxtaan foo dem ci grand place yi ci taxi yi ci marché yi ci bureau yi Sa Thiès Reug Reug yéen la ñuy waxtaanee ñu leen di ñaan nag ngeen xam ne ay xale ngeen te lamb daf leen yaakaar le cinq ngeen ñëw ci yar ñëw ci ay teggin bëre bëre xeex bëre que le meilleur gagne en tout cas ñu ngi euh, gërëm seen TV bu baax. di kontaan aussi ci seen TV ci seen taxawaay ànd ci timit ak sunu frère ITV Sala Bigué di leen wax ne incha allah ci kàttanu yàlla la 5 bii ñu jëm euh, lépp loo xamante ne nii xew na. ci làmb ji avant pendant et après man ngeen ko jàpp ci seen TV la chaîne leader lépp lu xew rek incha allah ci kàttanu yàlla ci diggante Sa Thiès ak Reug Reug di ngeen ko xam dingeen ngeen ko gis en direct sur la chaîne TV jërë ngeen jëf. Euh, seen seen affiche euh, point com ah euh, pay per bi ñoom ñoo ko gere nañ ma may rek ñu mu sànni ci ñaari kàddu bu ko defee rek très rapidement parce que aussi waaw. waaw euh, ñu ngi ziar bu baax tonton Ray di wax ne yenn nañu ak rëg-rëg yenn nañu ak Sa Thiès ku ko bëgg gis na dem senaffiche point com commencé nañu jaay bu yàgg di nga fa dem di nga mën a gis préparation mbëri ah, ah, ah, exactement fi ñu toll 10 euros 99 lay jar fi ne nii te prévente bi dina jeex le premier mars incha allahu rabbi te dafa nar a jar 15 euros vingt merci beaucoup euh, euh, waaw mais Ray waaw Formose waaw léegi ñu def remise de remise de drapeau drapeau rek ndeysaan euh, voilà le représentant du ministre des sports monsieur Yankoba Diatara avec euh, le promoteur Makan léegi Saala nga sànni ci ñaari kàddu xam naa. waaw li ma ciy mooy xam nga xam nga Makan wax ne ki ko sañ seen nga wax ki ko sañ man moom a sañse lii nekk ri ri ri quinze angle huit uh-huh. ku bëgg lii rek da dem ci moom am na yu gàtt am na yu gën a gudd am na yu gën gàtt mais Maguette encore une fois félicitations yàlla nañu yàlla may jàmm ba le cinq incha allahu rabbi merci merci jërë ngeen jëf jërëjëf Sen TV la chaîne leader jërë ngeen jëf Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi lii nag mooy liñ leen andiloon tey ci seen télévision seen TV gis ngeen ni ñu ko amee woon yéene ak ni ko yàlla sunu borom dogale mais rek di leen jox randiwu vous allah ci kattanu yàlla le 5 mars ci arène nationale ci diggante Sa Thiès ak Reug Reug que le meilleur